Depuis l'apparition du premier cas, au mois de mars, nous nous sommes conformés un peu aux directives mises en place par l'État, à savoir euh, l'arrêt de toute activité impliquant un rassemblement de personnes. Voilà, dans ce cadre, nous avons donné l'information à nos bénéficiaires, aux structures communautaires avec qui nous travaillons, notamment les groupes avec les clubs d'enfants, le CQP, le GIE euh, et les autres, structures qui ont arrêté toute activité impliquant un rassemblement de, personnes. Donc comme vous voyez, c'est AVEC avait arrêté son activité depuis le mois de mars et qui vient aujourd'hui reprendre son activité tout en respectant les mesures d'hygiène et en se conformant aussi aux mesures édictées par le ministère de la Santé. Il y a un groupe de personnes qui est mandaté pour collecter les épargnes et ensuite le jour de la réunion, euh, les épargnes sont consignées sur les carnets de chaque membre. Parce que les gens ont 3 mois à Parce que le temps est passé, wax naa la ñuy nattu ñi laa du dañu war a commencé waat natt bi parce que kii bi dafa am tardement parce que toog nañ 3 mois yoo xam ne mais bi ñu xoolee ba xam ne war nañ commencé waat natt pour liggéey si la ñu ndey mati waat ñu dajaloo léegi waa table bi ñooy ñëw ak ñu yore caabi ji ñu jënd suñuy rosi ko fe ku ñew ba joxe ñu bind la sa reçu nga dem jour nat bu joté ñun huit personnes ñoy mobilisé wu ni ñi encaisser di encaisser ku indi sa sa reçu ñu marqué la sa carnet parce que affaire toga bi mom dañ koy bañ parce que dañuy bañ problème ëllëg te comme fever bank ci dëkk bi te nit ku nekk ya mëna ar sa bop te ni rek lañ mëna ar sa ñu bop parce que liggéey tamit day and ak wër tay ji boy liggéey and ak sa fever yi tamit do mëna a liggéey di nga son di nga son ñi nga xamné ñom nga formé avec bi membre yëpp dañ daan dañ daan téw bu ñu teewee kenn ku ne daal di ñëw daal plus de 30 membres la ñu woon kenn dañ naan teew kenn ko ne ñëw defal ko moom épargnel boppam bu heure leb la jotee itam kenn ku ne tiw léegi nag bu ñu xoolee nii plus de 30 personnes bu ndajee dajee rassemblement dafay am ñu éviter loolu ñu ne léegi dañuy dañuy diviser groupe bi par sous group ñu def ko en trois sous groupe léegi sous groupe bu ne dafay am responsable boo xam te moom mooy responsable sous groupe bi ki nga moom mooy responsable sous groupe boobu moom mooy chargé wu bu mu récupérer membre euh, épargne membre yi nek ci groupe am yëpp mom moy ñëw verser ko ci avec bi keneen def non ba trois sous-groupe yëpp dajé ñukoy def nonu bu ko défé maximum 10 personnes ñoy nek ci réunion bi au lieu de 30 personnes maximum 10 personnes ñom ñoy ñëw ñom ñoo kenn léegi dañ leen jox ay bloc note yo xam te tamit mom moy mëna am ki ñoo mëna gérer traçabilité xaalis bi nga xam te ne moom mu ngay dugg ñi nga xam te ne mënuñu toog mënuñu ñëw ci avec bi ñu ngi tok seen kër di yónnee seen xaalis tamit ñu xam seen xaalis yi nan lay duggé jox leen ay bloc note yoo xamante ni dafay am ay bloc reçu yoo xamante ni nit ki bu joxee xaalisam da nga koy defar reçu wane ni tey période temps nit ki ñëw na jox na la montant temps pour épargner léegi ki nga xamante ni moom mooy responsable montant boobu moom lay indi si comité de gestion bi ñu defal ñu épargner nit ki mentionnel ko épargne ñoom noonu lay demee bu leb bi jotee tamit noonu lañ koy defee mais leb bi dafay am beneen différence parce que ki nga xamante ni moom mooy demande crédit moom mooy demander dañuy soxla mu teew

Donc nous avons accompagné les groupes avec à partager le capital. Donc euh, toutes les avec qui, euh, qui étaient âgées de 8 mois et plus, on les a accompagnés à partager leur capital et ensuite utiliser la caisse de solidarité pour euh, satisfaire une partie des besoins essentiels des enfants. Aussi, le CQP, le club d'enfants aussi, ont commencé progressivement à reprendre leurs activités. Actuellement, ils sont sur le terrain, donc ils déroulent des visites à domicile pour sensibiliser les tuteurs sur les gestes barrières, donc contre la COVID, mais surtout aussi sur euh, l'application la, des pratiques essentielles, donc pour le respect des droits de l'enfant et la satisfaction des besoins essentiels des enfants, de nettoyer et de désinfecter certaines écoles qui sont au niveau de la localité donc euh, c'est une manière de contribuer à la lutte contre la propagation euh, euh, du, coronavirus. Wow, pas comme nous parce que nous sommes toujours toujours nous. parce stratégie xam ñun maladie mais aussi de continuer activité D'accord, continue toujours doñu ñu ubbi école wala ñu tejj ko et l'école continue toujours parce que euh, bopp bu euh, naraam barke xam-xam da cay sax donc il faut que même bu école yi tijjiwul ñu continuer di jang parce que jang tôt ou tard fi ba ba ngay dee dalay fay donc bu nu tok rek ni tëj nañ école ñu noo duñ jang mais aussi nan fexé de telle sorte que bu ñu reprendre ñom ñëpp ñu metti ci jàppaat seen xel ni kat dañoo wara a jang mais pas ñëwunu pour fort aussi di leen wax ni maladie bi mi ngi fi ba tey nañ gën a taxaw booloo joxante loxo moytu malaadi bi te foog naa ni ñun jeunesse bi war na noo mën a xeex maladie bi ba jugee fi.